ci asalaamaaleykum mbokk internet yi nga xam ne yéen ñu topp di ñu seetaan ci seen télévision bu mag bi di GR Info TV ñu amati mbégte ak kontaante euh, àndaat ak yéen ci beneen jotaay tey nag ñu dalal borom xam-xam bu mag ti nit ku yàlla baaxal Serigne Makhtar boroom jinne yi yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ko ci faj aajo waaye tamit ñëpp xam nañ ko ci seet waaye tamit ak lépp loo xam ne rek ci wàllum asraar la tey moom lañ fas yéene waxtaanal gis nañ jamono ji ni mu mel yàqu-yàqu yi bari na ndaw ñi nga xam ne dañuy yaakaar seen yaakaar yi tas bari na waaye tamit nit ñi nga xam ni sax dañuy nekk ci bërëb di liggéey waaye ñàkk kaaraange ak ñàkk gàllaaj dana tax ñu ñu ñàkk lépp loo xam ne amoon nañ ko sëriñ Maxtaar tey moom lañ jàkkaar lool fas yéene waxtaanee ci yooyu yëpp lan moo koy waral waaye tamit suñu waxtaanee ci loolu ba pare danañ waxtaan ci li nga xam ne mooy saafara yi duma guddal dama koy jox rek mu nuyoo bu ko defee ñu mën a dugg ci waxtaan bi sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu. Ah, ñoo ngi leen delloo nuyu bu baax di la ziare bu wóor wóor wóor. Mhm. sëriñ Maodo maa ngi lay ziare di la ndokkeel bu wóor wóor wóor. Mhm. di ziare ñëpp di bëgg ñëpp di nuyu ñëpp nuyu góor ak jigéen. waasina fi naas bil xajji yaatooka rijaalan wa alaa kulli daamirin yaatiina min kulli fajjin xamiiq maa ngi nuyu ñëpp alhamdulilahi alkarimi silminan ala istiqaali bi furuudin wa tunan sakartuhu li annahu qad saaxani li watanin bi nafa ma xaqni waxaadi li ilayhi bi taalli min bahdi ma adaba bi taalli wa jarani fihi jërëjëf Serigne Makhtar ci nuyoo bu tedd boobu ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax Serigne bi ku la wax wala ku la xam xam ni boroom xam-xam bu mag nga waaye tamit nga nekk nit koo xam ni yàlla dalaa baaxal lool sa xam-xam da nga cee yéwén Serigne bi. dañuy njëkkee ci li nga xam ne mooy seet ndax seet ku ko wax xam ne mooy buntu ñaan mm-hmm. ngir nit ki ngir nga ñaanal ko faw nga seetal ko ay mbiram ba xam kii ban tabian la bokk ban biddewam nangam nangam yooyu sëriñ si ñoo koy xam waaye sëriñ bi lan mooy seet waaw sëñ Modou. Mm-hmm. seet dafa doon lu doy waar doy waar. sëñ Modou nii mën nga kaa seetal ba wax ko bis bi mu war a faatu wax ko bis bi mu judd bis bi mu judd. di mën nga kaa wax nit ba ne ko bis sàngam ngay faatu bis ban nga judd ban waxtu nga judd woon ban heure nga judd. da day feeñ ba ci heure bi. Mhm. nit ku jàngal mën nu joom da lay wax da lay wax sa seet wax la sa rawxaan wax la fi nga bokk. Mhm. wax la ban façon nit nga. dëgg la xam nit ku gaaw a mer nga. wala nit koo xam ne lu mu yaakaar di tas. Mhm. loolu mën naa la sëñ Moodu maa ngi lay xamal leen tey seet. billaahi wa rabbul kaabati sëriñ sépp maa leen ko dàq. allahu akbar billaahi wallaahi wa taalaahi loolu moo xam nga si soo tegoon sëriñ si ëpp du mën a ñëpp nag waaye ñu si ëpp maa dàq seet waaye ñu bëggoon a xam seet comme ni nga ko waxee noonu ñëpp xam nañ sax mën a seet ndaxte koy wax sax sëriñ Maxtaar ñoom jàpp nañu sax seet rek nga mën a nga gën a mën waaye xam nañu asraar lépp nga ci mën waaye sëriñ bi yow seet ci ban anam ngay seetee ndax gis nañu kurus da nga ciy seet te loo ci wax nit ki du ko du ko du ko weddi. sëñ bi. Mhm. nekk ma sori nekk États-Unis wala nga nekk foo mënti doon. Mhm. yow foral sa loxo yónnee ma ko ma wax loolu nit duudul dindi ci dund bi. allahu akbar foto rek. foto rek sa loxo rek ma wax loolu nit duudul nit ko fural loxoom rek yónnee ma ko. moo ko ah. lu mosul dégg si sëriñ. allahu akbar damay seet ci kurus. Mhm. di seet ci ndox. waaye sëriñ bi loolu dafa am solo seet ci ndox seet ci suuf seet ci kurus. mu mm. doon ay xeetu seet yoo xam ni boo ci laal rek maanaam seet gu wér la waaye ginnaaw nit ki boo ko seetalee ba pare maanaam mu doon nit koo xam ni dafa bëgg a ubbeeku. Mm. maanaam bëgg ay mbiram di dox koo xam ne dafa tëju woon sëñ bi kooku nooy jëflanteeg moom. waaw su nekkee koo xam ne ay mbiram dafa tëju. Mhm. rab mën naa tëj nit ba du am fukki dërëm du ko am. Mhm. waaw rab mën na loolu. moom rab day def loolu. waaw allahu akbar nit rab mën naa jàpp ni di ko fooyloo boppam muy fooy boppam. Mhm. te di ko tey. dëgg la fekk na rab a ko koy def loolu. Mhm. rab mën naa jàpp ni di ko sëyloo ak ku xolewul fekk na rab a ko koy def loolu. nit rab mën na kaa def muy fooy boppam. Mm-hmm. ak di def lu ne boppam fekk ni jàpp ne ak mbonam la uh-huh. fekk ne rawxaan bi moo koy def loolu noonu su ko defee pare muy rëccu xolam di tàng lu mu mm-hmm. bëgg am du ko am mm-hmm. wante giñ naa ko si yàlla kooku suñu jëflantee mu jàpp ci xaalis lu bare bare bare bare ci weer woowu allahu akbar damay bind jox rek mu tàmbalee di am ak tedd nga macha allah nga xamante mhm. waaw jërëjëf waaye tamit nit ki nga xam ne maanaam ginnaaw bi nga bi nga seetloo say mbir mhm. ba xam lii moo ko gàllankoor ñu ñaanal la ba say mbir ubbeeku nga bëggaat nag kaaraange mhm. ndaxte boo ubbeekoo te a sëriñ bi kaaraange dégg naa yaa ngi ciy liggéey lu am solo waaw sëriñ Modou kaaraange gu ëpp day tëj nit kaaraange gu ëpp day tëj nit allahu akbar nit mën naa am kaaraange kaaraange lool fekk ne kaaraange gi mu am mu ngi koy tëj mu ngi koy tëj te du ko bayre gu bëri day tax nit gaaw a faatu est ak gars yi ni ñu bëggee bari nii. billaahi wa rabbul kaaba de bari gu bari. Uh-huh. day faat nit wante kaaraangu bari day tëj nit ba du mën am. Uh-huh. la uh-huh. wa rabbul kaaba de. dëgg la. li ma lay def laa la ko la ko. incha allahu rabbi foo tourné ñu ma la ko defaatul ma jox ma dagg waaye tamit sëriñ bi xam nga dafa am loo xam ne it maanaam euh, nit ñi euh, am na ci ñoo xamante ne ay waxambaane lañ mm-hmm. maanaam lu ñu yaakaar mu tas ñenn ñi sax ci cadre sëy góor goo xam ne mat naa am soxna mënta am soxna amaana fu mu dem ngoro ji maanaam bu waxee ay kàddoom ba pare am lu ko yàq wala lu yooyu daa mel ni rab koy def waaye tamit yaakaar bu tas sëriñ bi mm-hmm. ki nga bëgg na am soxna wala bëgg wala bëgg na am borom kër yooyu xaw a dëgër sëñ Modou yaa ngi may laaj dawaawu doy waar tey uh-huh. laa ilaha illallah ak bëri ci nit ñi ak bëri am na ñoom dañuy bëgganteeg jigéen mm-hmm. wala ñuy bëgganteeg góor mm-hmm. dem ba ci yàgg affaire yi yàqu uh-huh. te ñu xam lu koy yàq te du xam lu koy yàq uh-huh. ñu dem ñaani ñu bañ ña duñ ko ko may Mm. fekk ne am na lu ne ci biir yaramam loolu fu mu dem moo koy yàq allah akbar wala ku mu nekkal day bëgg a tàggal koog moom ndax daa am na ci moom loolu moo koy génne ci li mu nekk est-ce que tu saxale mënut a saxal lu baax mm-hmm. mënut a def lu baax mm-hmm. lu mu def rek day mel lii day tey mu def lii soo mu def lii du xam fu muy taxaw du xam fu muy taxaw allah sëñ Modou billaahi wa rabbul kamari képp ku bëgg jigéen nga bëgg kaa takk mm-hmm. ay mbokkam bañ billaahi wa rabbul kahbati jigéen gi ànd ci si kaw jigéen gi ànd ci. soo la ñëwee ma boole leen si 15 jours. ci 15 jours. billaahi wa rabbul kaaba. allahu akbar. barke Seexul Xadiim. sëriñ si nag yow maa ngi doog a gëm ni yow gaa doo seen morom. billaahi da ngay yàlla suñu maxtaar ñi la ñam ba léegi bàyyeeguñ la te xam naa ni. Mm-hmm. ñàkk laa xam mooy waral ñu bëri sax ñu joxe seen xaalis ci yéen ñu di nax. Mm-hmm. waaye sëriñ bi bu ma jugee ci loolu des fois nga gis koo xamante ni ndeysaan day bëgg a tukki mm. wala sax mu fexe ba tukki bëgg a am kayit ngir ñibbisi mm. te moodu moodu dañ leen yàgg nax ci lu mel noonu mm. sëriñ bi ki nga xam ne dafa nekk bitim réew bëgg am kayit ñibbisi kooku nan ngay jëflanteek moom euh, sëriñ bi mm-hmm. dama ne wàllu kayit du ma ci sax di débat ndax bëri na ñoo xam ne ci moodu moodu yi mm-hmm. jàppal naa leen si ba pare ñu sant ñoom xam nañ la ñoo xam nañ ma bu baax a baax ci wàllu kayit mm-hmm. gis nga mos naa la kaa wax si si mustallatul xasaal yi daan ne soo daggee mustallatul xasaal yi baytu xalam day dox ci wàllu kayit loolu koo ñaanal billaahi wa rabbul kaabari tubaab bi sax mën nañ kaa fekk fi mu toog jox kayitam. Mm-hmm. billaahi wa rabbul kaabari ndax day day day doon loo xam ne tasxiir bu doy waar lay doon. Mm-hmm. wante kayit dafa doon mbir yoo xam ne nii lu naqaree la. dafa naqaree lijjanti waaw dama koy lijjanti man ci lu gàtt diir bu gàtt. Mm-hmm. billaahi wal billaahi wallaahi. allah akbar dama koy lijjanti diir bu gàtt. Mhm. waaye nag sëriñ bi. Mhm. man li ma jaaxal ci yow. Mhm. des fois sa mbokk yi nga xam ne say mbokki sëriñ lañ sax ñoom dañ koy waxtaanee sëriñ bi naan sëriñ Maxtaar xam-xam bi mu am. ndax xam nañ ko ci yow ba say wax sax des fois dañ koy dégg xam-xamu soose yi yeeg xam-xam bépp xeetu xam-xam sëriñ bi da nga koo gëstu ñëw toog ci loolu maanaam nu la dikkee noonu. loo jàng la wala lu mu doon sëriñ bi damaa mënul wax sax jëf laa gën a mën ci wax. allah akbar sëriñ bi combat yu bare bare dama la kaa wax lii ak lii mooy am. te noonu la demee sax te noonu la demee mhm. sëriñ su bari mujj gi su combat amee dañuy njëkkoon a mhm. leen wax kan mooy <laughs> <laughs> ah, a mhm. ku ma defal ni sa loxo ma xool li nga nekkee allahu ma xool ko billaahi wa rabbul kaabati may suñ borom la am na sëriñ sama musa woo naa naa ba nga jàngal ma luxus ma ne ko soo ñëwee ma jàngal luxus mu ñëw ma jàngal ko luxus pare yëkkati sama xaalis may ko est-ce que te moom may dégg bu baax a baax xam ne ki ma koy wax. Uh-huh. sëñ bi damay ndàq ñaan de. mais nag sëñ bi loolu jaaxal na gars yi de maanaam maanaam sëñ Matar man man ñaan gi man loo doonu la yow wala loo xam ne da nga koo gëstu ji ndaxte am na ñoo xam ni maanaam dañ koy forcer rek. waaye hmm. newut ci ñoom mais yow ku loo xool xam ni ñaan gi dafa nekk ci yow. sëñ bi. Mm-hmm. ñaan balaa nga xam mën. Uh-huh. foog nga ñemee kurus. dëgg la seel la si biir. Mm-hmm. sell yaram nag du dara. Mm-hmm. foog nga sell sell biir. mën a ñaan. ndax ijaaba foog nga am ko. ngay sell ci zaahir sell ci baatin ci baatin ku la gis xam ne yow am nga loo làmboo man ñi ma àndal nit yee ci gën tuuti nit ñi ñoo si gën a tuuti Matar Jinne lu ko indi kenn xamul lu ko indi dëgg la tur boobu mu ngi dugg mu ngi jugee ci Laurent a mhm. bërekat moom la si la si la si la jugee moom Laurent Ndiago waaw si moom la jógee de allah akbar sëñ bi <laughs> kon Laurent xam na la ay <laughs> Laurent Laurent xam na kii sëñ Matar Jinne billaahi wallaahi wa taalaahi mhm. ji ñu si ëpp xam nañ ma la ah yàgg naa ngeen mbër ko yóbbu de. Mhm. barki alxuraanul karim yi. Mhm. te maa dàq seet gaay maa ngi dàq ñaan. dëgg la barki seexul xadim yi. macha allah waaye sëriñ bi bu ñu jugee ci loolu dañuy wax ci li nga xam ni puusal ma toog dafa mhm. gis koo xam ni day nekk ci niveau bii maanaam ñii di sunguf ñii di reen maanaam jaayante doole bi. ku ci nekk yaa ngi fexe yëkkati sa morom puusal ma toog bi. ki nga xam ne dafa nekk ci entreprise te moom fa mu nekk bëgg na nekk fa ba xëy jugee fa maanaam lu ko fay dëj sëriñ bi loolu daa mel ni yaa ngi ciy def lu am solo tamit. sëñ Modou. képp koo xam ne da ngaa nekk ci place ñu bëgg la faa ñu bëgg la faa génne. Mhm. un mhm. uh-huh. bi baytu xaal bi noonu nga koy wàccee dugal la jëlee la faa jëlee. ci place boobu noonu allahu akbar xam-xam dafa am. Sëriñ Modou. Mhm. place boobu tamit soo si bëggee bayra soo defee loolu ba noppi. da ngay bind wa azin na fi naasi bil xajji yaa tuugu rijaalan wa ala kulli daamirin yaa tiina min kulli fajjin xamiq mhm. soo ko defee bayre ngay am bayre boo xam ne nii seetetetewaat. allahu akbar di nga am bayre boo xam ne billaahi wallaahi taalaahi di nga tiit sa bopp lool. Mhm. ci place bi. macha allah. ni nga dendal ñëpp di nga xëy di jaay. ba ñoom mhm. ñëpp dañuy tiit billaahi wa rabbul kaabati. allahu akbar waaye tamit sëriñ bi xam nga loolu am na solo. waaye des fois nga gis koo xam ni. maanaam day am ay kayitam jàng ba ne ar diplôme moo diplôme mu yore ko def master def bac d'office lu ne mu am ko waaye pour mu am liggéey rek problème la fu nekk lay déposé xaaral suba tey suba ginnaaw suba ñenn ñi sax seen dossier dañ koy jël sànni sëriñ bi kiy bëgg liggéey di ko wut kooku bu jëflanteeg yoo xam naa ne moom du fanaan naan. sëñ Modou kon ma dagg sama kurus dama koy dagg bàyyi ñaan. allahu akbar. billaahi wallaahi wa taalaay. Mhm. jëru ngay egg soo bindee min jalaa bii bi xen téeméer yoon mhm. ut suuf sa nga bëgg a liggéeyee mhm. nga sanga ko juróom-ñaari fan billaahi wa rabbul xabati ñu woo la ñu la kaay ñu woo la ñu la kaay jël sa place barki seexul xaddi mi ne la kaay liggéey te ñu bari la neex ku toog amoo liggéey yow la neex sëñ bi sëñ bi sëñ yi gars yi dañoo war a xam ki sëñ maxtaar borom jinne yi uh-huh. maa ngi sëñ maxtaar jinne yi dëgg la maa dàq faj xaajo uh-huh. si gars yëpp maa dàq faj xaajo ñoom dañoo mën a ba naan mën nañoo wax lu ñëwagul uh-huh. nañ allahu akbar ñaari sëriñ lañu yóbbu vaar. Mhm. bari na. ah bari na lool. kenn ah. suñu mataar de suñu mataar de yow sa xam-xam moom man daf maa mujjee sax dépassé ndaxte mbokk yi nga xam ni sax maanaam ñooy jëflanteeg yow. Mhm. ñoom ci boppam ñoo koy seereel seen bopp. Mhm. te sëriñ bi dafa am loo xam ne ndeysaan man dama ko gis yow muy sëriñ bi ku la xam fam la xamee ba tey fa lañ la xamee doo tuxu doo randu ku la woo dana la jot bokkoo ci sëriñ si nga xam ne bu ñu leen dugalee seen rek dootuñu leen jot. sa diggante client yi balaa ñu ñëwaat ci beneen ci beneen jotaay. sëñ Modou. Mhm. daa am koo xam daa ma sa nekk New York City. moo ngi nekk New York jóge woon New York xaw ma City la ne woon xaw ma. Mhm. ma daan may woo daan may dugalal xaalis seetam ma seetal ko pare fekk maa ngi jàpp. Mhm. ma pare waat ko ne ko ah sëñ bi de xanaa maa ngi jégalu nangam nangam. waxul woon lii ma xam ne mënoo seet. dëgg la daanaka ma sëriñ sépp yaa ndàq seet turoon ma ay kilifa yu mag. nee na yaa ndàq seet. ma ne ko sëñ bi man ni dina ma woo sax amul xaalis ma dimbalee ko seetal ko loolu mhm. waaye ne ko nag yenn saa jot ma daa jafe trop dëgg la wante sëñ bi mhm. ma xamal leen nit ñu bare bare bare ñu may woo mhm. may xettali ma leen xettali te lekkuma seen dërëm wallaahi ndeysaan ñi am na ñoom ci noob laa leen dimbalee si noob moo seen jëkkër si ñaari fan xam xoon naa la ko benn bis ne la noobu quatre temps am na gaa yi weddi ko dëgg la dama kaa defal ki nekk euh, New York sëñ Mouhamadul Fadal dama kaa defal noobu quatre heures de temps mu jàpp. Mhm. billaahi wallaahi taala defal naan ku ñu naan Basiiru te Basiiru mu ngi nekk ci marché Thiaroye bii. allaahu akbar ñoo ci man jaaxle lool te loolu magam la woon. Mhm. ma defal ko ko ci une minute. ne ko toogal su ma jàppul ma bàyyi sama ma dagg sama course. allaahu akbar mu toog ma nopp ko jàpp ko jëkkër ji woo ko fi ma toog. Mhm. damaa dàq dama dama leen dàq nopp dàq leen a ñaan nag. nangu leen yéen sëriñ sépp nangu leen loolu. mbir mi yàlla la ko may. billaahi wa rabbul kaaba. maa des fois nga gis koo xam ni moodu moodu lay nekk. Mhm. maanaam ku nekk Europe def fa ay at yu baree bari mënta ba. loolu yëpp li koy waral mooy ñàkk bayre tubaab te bayre tubaab dégg naa sëriñ bi yaa ngi ciy liggéey loo xam ni tubaarkàlla. xam nga ni sëñ bi waxoon naa la ko benn bis. dama ne nit ku xonq tubaab nit nit ku nit ku xonq. Mhm. ak neex a jàpp. moo gën a neex a jàpp ndeysaan wallaay laa soo ko bëggee xirtal mhm. réew yi tubaab bi rek. mën naa leen xirtal ba ñoom ñëpp ñu ñëw ci man. Mhm. luñ am di ma jox luñ luñ xam di ma wax. est te du ma ko sañ a bañ. allahu akbar. sëñ mi innahu min suleymaan wa innahu bismillahi rahmaani rahim nañ koy doxal. Mhm. suñ koy doxal léegi ñu gis njariñ ñi moom moodu moodu mhm. ñaata moodu moodu ñu may woo nan ma man fii de maa ngi biir États-Unis waaye mënu maa am liggéey. ñàkk bayre moo ko waral. dëgg la. wa taala. est loolu loolu wér na waxoon naa la ko woon naa la yow yaay le messie des marabouts sëriñ Maxtaar Jinne la ñu amoon tey ci suñu jotaay mu nekk borom xam-xam bu mag waaye tamit nekk nit ku yàlla baaxal eh, sëriñ Maxtaar lu mu la wax ci asraar lu mu xam la waaye tamit lu mu mën la tey moom lañ amaloon jotaay nee naa ko sëriñ bi yow yaay le messie des marabouts moo tax ay bés yu nekk rek danañ am ak yow jotaay ngir mën a baaxee jaami ñi lay topp di la seetaan ndax sa jëmm ji ñi ko sopp bari na lool waaye tamit ñi tëwa sa xam bari na sëriñ